nuyu sama collègue député monsieur le président code électoral bi li ñu ci gis mooy baaxul ndax dëppoowul ak suñu constitution code électoral bi li ñu ci gis mooy boo ñëwee article vingt neuf L vingt ak L trente boo xoolee li ci nekk dëppowul ak suñu constitution ndax dama jàpp ne nit su demee ba war a ñàkk ay droits civils ak politique juge moo ko war a wax waaye du ñun législateur yi ñun ñoo ko koy xaj kon dama jàpp ne dëppawul ak suñu ndax boo demee ci déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dispose que tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de voter et d'être au cours d'élections périodiques ci fi nga xamante ne yéen moom ngeen di moom ngeen di roy muy France France code électoral bi amoon na bi mu amee bi ñu ko joxee conseil constitutionnel maanaam da ko gàntal ci décision boo xam ne mi ngi ko jël numéro 2010 euh, euh, euh, tiré 6 bar 7 di ancien 2010 ci la waxee woon ne article 7 boobu nañu ko dind ndax méngoowul ak constitution bu France loola day wane ne ñun itam Sénégal L 29 ak L 30 bi méngoowul ak suñ constitution ndax li nga xamante ne nii mooy suñu constitution waxul loolu te dama jàpp ni électeur bi warul ëpp doole constitution protocole bu CEDEAO yi tamit ci article 2 tiré 3 moom it wax na loolu kon dama jàpp ne monsieur le ministre suñu bëgg-bëgg mooy code bi ñu jëlaat ko delloowaat ko commission bi ñu xoolaat ko ndax baaxul ndax dama jàpp ne tey Sénégal tey toll na foo xam ne boo jëlee tey Sénégal yëpp tey ñëpp tey ñi ngi en sursis ndax tey ku leen neex tey suba mun na bañ a bokk ci ay élection muy bépp Sénégalais ndax tey bu ngeen nee képp koo xamante ne dañu la tëjati lu un mois même su fekkente ne surgi la amatuloo sa droit civil ak politique ñàkk nga ko mënatuloo bokk ci ay élection kooku Sénégal yëpp a ko bokk kooku Sénégal yëpp ñoo ko bokk ndax loolu dafay wane ne yéen da ngeen a jóg yéen a ngi raam jëm ci réew moo xamante ne dama jàpp ne buur ngeen bëgg a programmer seen bopp ndax dama jàpp ne Sénégal laajatul loolu dama jàpp ne Afrique weesu nañ foofu Sénégal weesu na foofu ba tax na monsieur le ministre d'accorduñ ci ci biir foofu it ci laay duggee wan la ne la am na lu fi jaaroon te li fi jaaroon placé nga pour tontu ma ci ndax dama xam ne dama dama lay laaj li nga xamante ne mooy CREI article quatre vingt un maanaam loi quatre vingt et un moom moo defar CREI bi mu defaree CREI foofa délit d'enrichissement illicite moo fa ne te délit d'enrichissement illicite bu ñuy cay daan nit ñaari daan rek la mën a am. mooy amande la ak tëj la kaso moo waral yow bi nga nekkee procureur bi nga demandé pour que ñu xañ Karim Wade ay droits civils ak politique am bi daf laa gàntal ndax amul woon détournement amul woon escroquerie amul woon yeneen yi ma jàpp ne tey jii nii seen article vingt neuf bii Sénégal yëpp war ñuy jóg taxaw pour que mu bañ jàll parce que lii si jàllee nekkul luy defar mais lu yàq la ndax li mu wax mi ngi nii ne doit pas être inscrit sur la liste électorale. Les individus condamnés pour crime, ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assorti ou non d'une amende pour l'un des délits suivants vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de détournement et soustraction commises par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et en général pour l'un des délits passible d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ma jàpp ni lii Sénégal yëpp war nañoo jóg ñu àndandoo ñu xeex pour que loi bi warul jàll. beneen bi ci topp mooy mission d'audit yi nga xam dañ fee jaar muy de 2010 2011 ba 2018 par exemple 2018. mission d'audit du fichier électoral du 26 février 2018, les experts de l'Union européenne, PAS 27, ont pointé des incohérences entre le code pénal et le, et le code de procédure pénale d'une part et le code électoral d'autre part. Cela remet clairement en cause le principe. mission d'audit bërki démb bi yi tamit 2021 bi gis nañu ne wax na ne article vingt 29 ak article 30 te ñu nekkoon article 31 article 30 ak article article 31 ak article 32 tey ñun soppi ko indi ko article 29 ak article 30 amatuñu place ci biir code électoral. Je vous remercie, chers collègues.